asalaamualeykum ziyaar ak màggal leen ñëpp ñi di déglu ak di seetaan Kifne TV télé ki fi nekk ñu ubbee yéenekaay yi fas yéene leen waax li gën a fës ci seen bopp xibaar tombé ak tey ci altine ñaar fukki fan ci weerum juillet atum 2020 li nga xamante ne mooy réew mi quotidien ñëw ci li nga xamante ne mooy wax ji nga xam ne Mary Teuw Niane ko daal di yëkkati daal dina xamal ne ministre mënul uh, nekk ki nga xamante ne dafa daal di riche loolu yéen kay xëy di ñu ko xamal ba tax ña bark vente des appartements yi nga xamante ne dañ koy jaay foofu nga xamante ne mooy buur gi ba gis nañ foofu lu toll ci 4 milliards la ñuy daal di indi ci wàllum sécession kaay yi dugg ñun daal di ñuy wax ci affaire de liquidation yi nga xam ne am na ci wàllum liggéey bi ba tax na yéenekaay yi daal di ñuy xamal lu toll ci vingt milliards daal takk na ci suuf ba tax na foofu nga xamante ne eh, mooy ca ñu ngi jën pël gis nañ ni ñoom it tamit am nañ problème bu raw li nga xamante ne eh, mooy foofu ca Ndingale ci wàllum li nga xamante ne mooy suuf si ndaxte gis nañ lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk juróomi hectare eh, la ñu daal di attrier ki nga xamante ne mooy maire bi loolu yéen kaay daal di ñu koy xëy xamal ba tax na moom yéen kaay yi daal di ñuy xamal ni gannaaw bi ñu defee ay test gis nañ ni am nañ lu toll ci li nga xaman ne eh, mooy téeméer ak lu ci ñi nga xamante ne dañ leen daal di juróom benn téeméer ak lu topp ci li nga xam ne dañ leen daal di testé ñu daal di positif gannaaw bi nga xamante ne juróomi téeméer yi dañ leen daal di faj ñu daal di wér ëttu yéenekaay yi xëy di ñu xamal ni am nañ fukk doomu aadama yu daal di faatoo ba tax na moom yéenekaay yi daal di ñuy xamal ani ba tey corona mi ngi xëy di dëgg tànkam ci biir réew mi source a daal di ñëw ak ñun wax ñu ci ki nga xamante ne mooy Ibrahima Khalil nekk foofu nga xam ne mooy meeru kër Sàmbakan gis nañ ni moom it tamit ci wàllum teer yooyu ñuy xamante ne dañ ko daal di moom it tamit am na li nga xamante ne mooy wàllum problème ba tax na yéenekaay yi xëy di ñu xamal ni info ba tax na ki nga xamante ne mooy milliardaire bi daal di riche di xëy di moom ci tàmbale ci li nga xamante ne mooy fukki junni ci li nga xamante ne mooy toll ci soixante ci li nga xamante ne doole moo ko ko daal di may ak liggéeyal sëñ Touba ba tax na direct news daal di ñuy xamal ni Sénégal passé na baar bi nga xamante ne mooy vingt pour cent ñi nga xamante ne dañoo ame doomu jàngoroy Covid 19 ba tax na moom yéenekaay di xëy di ñu xamal ne bu ñu wattuwul Dakar dañ ko war a daal di confiner ba tax ken kenn warta génn warta euh, dugg gannaaw bi nga xamante ne corona mi ngi xëy di law bu baax nekk ci mbedd mi di tambambaalu di def li ko neex yéen kay xëy daal di ñuy xamal ci wàllum tabaski bi Dakar dañ ko waroon daal di tëj kenn du fa daal di dugg kenn du daal di génn ba tax na populaire daal di ñuy xamal ni foofu ca Touba dañ faa jàpp euh, li nga xamante ne mooy ay ngànnaay yi nga xamante ne ay arme la ba tax na yéenekaay yi di ñu xamal ni lu toll ci téeméer ak fukki arme yoo xam ne jot nañ koo jàpp foofu ca euh, Touba ci ay doomi aadama juróomi façon arme yi nga xamante ne benn bokk si ak ci sa morom ak li nga xamante ne mooy drogue lañ daal di jàpp ci ñoom ba tax na moom yéenekaay yi continuer di ñu xamal ani ba tey fi ñu toll nii ak jubluwaayu Tabaski bi gis nañ ñi xar yi xaw nay wàññi bu baax a baax taxu koo seer loolu wax ñu ci li nga xamante ne moom la ñuy jaay appartement bi nga xam ne mooy Eden Rock toll na ci li nga xamante ne mooy six cent cinquante bu nekk lañ koy daal di ba tax na sud daal di ñëw ak ñun daal politique de patrimoine loolu nga xamante mooy kaawu Sandaga bi yéen kay xëy di ñu xamal ba tey ak li nga xamante mooy crise sociopolitique yi nga xamante dafa am foofu ca Mali ñoom nanguwuñu proposition bi nga xamante moom la leen CEDEAO daal di defal critique mbeddum Dakaaru Njaay ba tax na yéenekaay yi daal di jàll ñun ak wax ñu li nga xamante ne mooy wàllum euh, yi am problème gis nañ ni revue de presse yi ak journal yi ñu ngi di ko wax bu baax ndax dañ ko daal di médiatiser libération daal di ñëw ak ñun wax ñu ci conflit yi nga xamante ne dafa am ba tax na l'IGE moom daal dinay interroger ki nga xamante ne moo nekk ministre de la pêche euh, nekk ki nga xamante ne mooy Ali Aydara moom tamit daal dinay wax million bu nekk ak milliards yi fan la ko daal di dugal ci li nga xamante ne moom lañ ko dugal moom lañ ko jox ci wàllum liggéey ba na ki nga xam ne mooy Lamine Diack nañ ko moom it tamit ci li nga xamante ne mooy wàllum immobilier yoo xam ne moom it tamit loxoom da ci daal di takk lii quotidien daal di ñuy feelu ñëw ci li nga xamante ne ba tey xëccoo bi nga xam ne nekk na fi di am ci wàllum suuf si ba tax na Abdoulaye Wilane yëkkati ay kàddu daal di xamle ba tey suñu njiitum réew mi ñu nekkal kenn amul droit di wax wala di def wala di teggi kooku daal moo lay wax fi nga war a aw ak li nga war a def fa tax na moom yéenekaay yi daal di ñuy xamal ni ak droit bi nga xamante ne nit war na ko am mun nañu daal moom daal ñi nga xam ne ñu liggéey ci wàllum politique bi ak waa réew ko ci moom enquête yéenekaay yi daal di ñuy xamal ni assemblée générale notaire yi daal ñi ngi xëy di fa jàkkaarloo ku nekk di def règlement de compte ci moromam ba tax na quotidien daal di ñuy xamal ni moom ba tey ak yéenekaay li nga xamante am na foofu ca Touba gannaaw bi nga xamante gis nañ ni euh, ci foofu noonu dañ doon yor wàllum arme blanche ak li nga xamante ne mooy drogue di ko dugal foofu ca bi réew Les Échos daal di feeloog ñun wax ñu ci li nga xamante ne mooy Cheikh Omar Agne bi nga xam ne dafa daal di xëy tëjee bopp xibaar yi ak li nga xamante ne mooy record jàll ci li nga xamante ne mooy réew mi quotidien stade ak sunu làmb xëy daal di séddoo ki nga xamante ne mooy moom mooy Boy Niang xam ne dañu validé combat am ak Tapha Tine Sa ak ki nga xamante ne mooy gayra mooy garga ba tax na moo gënoon fës ci seen bopp xibaar tombé ak tey ci altine ñaar fukki fan ci weeru juillet atum 2020 Kifne TV télé ki fi nekk di leen ñaan ngeen di sàkkoonte ak li nga xam ne moom la état di demandé gannaaw bi nga xam ne ñu ngi jëm ci wàccuwaayu Tabaski bi da leen takk fonk li nga xamante ne mooy raxasu bi eh, te yokku set bi bu baax wasalaam